mbokk internet yu Medina TV maa ngi leen di nuyu di am mbégte ak contentement jàkkaarloog yi comme à chaque fois nag ni ñu koy waxee Medina TV lu leen neex ak li leen bëgg rek moo ko fi tax a nekk ba tax na nag maa ngi fii tey golf seesi ndaanaan nee naa ki nga xamante ni moo ma njëkk gëm moo ma jàngal lii may def ki nga xamante ni moo ma njëkk a wax am na lii nelaw loo xam te dañ koo war a yee si yow Euh, muy Junior Guèye chroniqueur bu mag bi ci réew mi nee naa ko doo wax euh, showbiz di ko ci génne ndax lim ci xam dafa bëri dafa yaatu moom laa nag fas yéene tey sekkal waxtaan dama koy dekk sama micro rek mu nuy mbokk internet yi. acca mbokki internet bu Medina TV maa ngi leen nuyu di leen siyaar bu baax baax saa su nekk seen mbégte suñu bànneex la rek comme ni ma koy faral di waxee Amina. di la nuyu yow itam ah di la euh, jox sa wàccuwaay di la wax ne gis nañ liggéey bi rafet na trop macha allah léegi moom tu es macha allah. <laughs> <laughs> yow sama doyen nga. macha allah nee naa la lu nekk ci man yëpp yaa ko def. yaa ma njëkk a gëm jox ma micro. wan ma yu bëri jàngal ma yu bëri c'était pas facile nag. Ah, xeex nañu ci <laughs> waaw waaw la animatrice yi ni métier da koy jàng xeex nañu ci bi lépp def nañ ko si anamu tey yaa mhm. ngi yaa ngi doxal adresse boo jàkkaarloo di nga mën a laaj dëgg la la lañ bëggoon naa dëgg la moom parce que tey bu ñu amee benn xam-xam téye xam nga mm-hmm. yaataluñ ko ñu si bëri duñ ci mën a ci mm-hmm. a jot macha allah aw ma sa fay di la remercier rek di ñaan taxawaay bi yàgg nga fekk lépp ñu bañ a séddale sa dara sa ginnaaw nga tax a bàyyi laaj àllarba waaw yow tam na ngay joxe àllarba <laughs> yàgg na bu ngoom <laughs> waaw nabu ñu koy nabu ñu ngi koy nuyu de passage <laughs> euh, ñu jugg nag si waxtaan bi euh, junior gis nga fan yi li fi xew mm-hmm. euh, ñëpp di ko rafetlu àdduna bi yëpp di ko rafetlu en tant que chroniqueur ah, nga nekk ci milieu showbiz def comme ni ma ko waxee léegi rek ni ñu ci xam ñu bari xamuñu ko si tax danga ci yàgg mhm. euh, noo gisee Wally Seck ak Sidi Diop Sidi Diop seetsi bi mu seetsi Wally Seck àdduna ñëpp bu rafetlu ko waaw euh, Sidi Diop avant tout Amina dama lay nuyu léegi nii ah nuyu mbokki internetu Medina TV yi nga xam ne ñoo ñuy suivre di wax nag di leen abonné nag tey bés cloche de notification bi mhm. jëm yi gën a bari. Mhm. waaw ngeen ñuy gën di suivre quoi. Mhm. damay rafetlu question bi nga wax parce que question d' actualité la. Mhm. mën naa ne aussi showbiz actualité la parce que. tey foo tourné ci internet bi rek réseaux sociaux yi moom mooy moom mooy moom mooy nekk moom mooy nekk à la une quoi. Mm-hmm. donc Wally Seck ak Sidy Diop Sidy Diop dem seeti Wally Seck malgré am na loo xamante ne bi jotoon na fee am si seen histoire ñoom. Mm-hmm. donc ñu retrouver waat nekk si jàmm lu ko waral mooy Sidy Diop dafa war a dem fi nga xamante ne moom moo di Zénith donc pour man loolu dama koy jàppee lu rafet. lu rafet laa koy jàppee. Mm-hmm. c'est-à-dire ñaari artistes yooyu dañoo fës. mais Sidy pourtant na yeneen artistes yoo xamante ñu def li nga xam tey bi moom moo di maanaam si li dem seeti Wally Seck mu bëri coow bëri bëri bruit parce que dañ doon showbiz mhm. showbiz nag boo ko déggee comme ni ma koy waxee mënul ñàkk ci li nga xamante ne bi moom moo di musique mhm. boo nee musique du ma wax sax musique sénégalaise mais dama naan world music mooy musique du monde mhm. tey boo xoolee boo demee Amérique da nga daan dégg dégg nga fi histoire jarul mm-hmm. xam nga ak yeneen histoire yi ay 50 Cent mm-hmm. xam nga mm-hmm. ay ay ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, kii euh, Snoop Dogg ñoom ñëpp seen histoire noonu la demee woon dañ doon showbiz donc mën naa ne dafa nekk li nga xamante ne bi tey euh, dafa dafa maanaam dafa viral dafa maanaam monde bi ñëpp indo sax boo demee seen film indo yooyu li ñu joué showbiz kon mun nañ kon mun nañu jàpp ne Wally ak Sidi jotewuñu dara donc so la loolu nag ak fans yi non jotewuñu dara parce que uh-huh. xam nga gis nga musique sénégalaise dafa am loo xam ne moom moo koy jaay mm-hmm. wax naa ko nee naa gis nga rappeur bu ñu yëngoo rap bi day day jaayu xale jigéen dañuy sanap kii naan nga aka blende mm-hmm. ay kii naan kii naan kii naan axlu birik xam nga kii naan déb dund gis parce que mm-hmm. dañuy yéegal niveau bi donc bu ñu bu ñu bàyyee seen loxo rek niveau rap day wàccaat comprendre moo tax yenn chaîne yu rap yu bari boo gisee parfois mu yéeg parce que niveau rab bi dafa yéeg boo gisee mu wàcc parce que niveau dafa dafa wàccaat mm-hmm. donc ñoom ñaar dañoo téye li nga xam ne moom moo di showbiz u Sénégal mm-hmm. mënul ñàkk nag mm-hmm. mënul ñàkk parce que wax naa ko nee naa déggoon nañ fi Wally Seck ak Pape Diouf seen problème baaru mundi bi showbiz la woon xam nga fans yi ñiy wax fii ñiy wax fii donc Sidy Diop Wally Seck déggoon nañ ko fi yenn problème yoo xamante ne bi saa su nekk du ma fi su kenn nag xam nga affaire du pompe à gaz ñu naan ñëw waa kër Wally yàq yi c'est-à-dire loolu moo dafa bokk showbiz dafay dundal showbiz mhm. maanaam coow ki showbiz man naa ne bu amoon lekk coow mooy lekkam mhm. bu amul coow artistes yi duñ feesle artistes yi kenn du leen dégg fans yi duñu wax yaa ngi mhm. dégg ñun site internet yi duñ doxle kenn du doxle jaakote t-shirt yi jaakote jaakote lacoste yi kenn du doxle donc maanaam loolu showbiz la bokk Wally Seck nag Sidy Diop bu jógee seeti Wally Seck da ko war a seeti parce que xam la magam la moo ko njëkk ci li nga xam te moom moo di te dañ ne mhm. koo fekk néeg bu lëndëm wal naan ñëwal nga toogee nii mais am na ñuy wax naan waroon na ko seeti bu yàgg li mu def nii waroon na ko def bu yàgg waru woon xaar mhm. ba war a dem seen dem ci waali waaw xam nga loolu mhm. waxi ñi xamul la mais ñi xam showbiz du dund showbiz dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg yow da nga daan xool tey Sidy bu génnee euh, def benn riposte rek gars yi dañ koy xaar baara mun ni baara mun day fees dell Wally Seck bu amee coow da ngay gis gars yi dañuy xaar Wally Seck Vogue Vogue day fees dell cest à loolu dafa nekk loo xamante ni nit ñi comprendre moom mooy doxal ñoom seen showbiz maanaam moom mooy doxal coow ba cest à da ngay toll artiste da ngay toll foo nga xamante ni bii mm-hmm. yow foog nga jël bopp dóor ki ki la gën a féete mag pour ñu lay tëkkale ak moom mm-hmm. ki nekk yow ki la gën a féete suuf chaque jour dañ koy jël di ko dóor yow pour ñu ko moom tamit ñu koy dégg mm-hmm. isi am comprendre mais ñoom ñaar jotewuñu dara Wally sekk ñi nga naan war a Sidy waroon na seeti Wally Seck bu yàgg nit ki waroo ko seet te heure seet jotagul dañoo xam ne dëgg mm-hmm. mais heure seet bu jotee wax ne fi nga ko a seetee fi nga ko a seetee parce xam ne dëgg nag heure seeti na mi ngi soog a jot ndax dafa jëkk ci programme bu mag Amina mm-hmm. ñu gis aussi Wally Seck euh, jooy na ci am ay vidéo yi nga xamante ne moo ngi circuler ci réseaux sociaux yi ñu bëri ne Wally jooy mi jooy jooy showbiz la mm-hmm. waaw noo gisee loolu tamit waaw jooyu showbiz la xam nga Sénégal moom wax naa ko nee naa mën nañoo xëy duñu am luñ lekk ak luñ naan duñu am ndox buñ sangool waaye lu ñu nettali moom ak lu ñu wax. Mhm. chaque jour dañ koy am. Mhm. loolu moom mënul ñàkk. Mhm. gis nga Wally ah bu Sidi jooyoon bu Sidi jooyoon xamala la ñuy wax dañ naan Sidi dafa seytaane mais Wally moo jooy ñu ne jooy jooyu showbiz la war woon a jooy war woon def léegi léegi lii mais Wally li ko jooyloo ñun ñi ci biti xamuñu ko mais xam nañ foo li nga xam te moom moo jooyloo ah lan la loolu junior non non c'est-à-dire que dem yaa ngi dégg Omaro wax na ne li njoogu mbaay wax moom moo tax Wally gis nga Wally bu rafet moo tax mu jooy wax naa leen ko nee naa leen Wally dafa am loo xamante ni da ko dund ci li nga xamante moom moo di musique sénégalaise mm-hmm. am jaar-jaar yoo xam dafay jaar mm-hmm. yaa ngi dégg mm-hmm. tey dafa war a jël xale yi ay rakam tete leen teg leen ci li nga xam ne moom moo di yoon waaye lan lay actuellement lu muy prouver ci musique sénégalaise commencé na génn def woot musique maanaam musique bi nga xamante ne tey moom mooy dox extérieur donc kooku amatul dara loo xamante ne bii tey da koy prouver ci musique sénégalaise waaye lu coowal nañ ko saak coowal nañ ko t-shirt coowal nañ ko loo xalaat coowal nañ ko ko sol na fi lacoste sol na fi mhm. body nit ñi coow maanaam kon kooku coow léegi maanaam da ko dépassé quoi est-ce que yaa mhm. donc am na foo ne ni tey bu fa tolloo ñu wax mu jooy xoolam bu rafet moom moo ko jooyloo mhm. parce que Wally si boppam xam na ne maanaam adduna du dara maanaam am na am na yoo xamante ne adduna jaru ko te tamit le geste que euh, euh, geste bi nga xamante ne Sidi Diop def na ko Diop def déplacement jëm seeti Wally non ñu bëri yaakaaruñ ko woon quoi parce que ñu mm. bëri yaakaaru woon nañ ne maanaam Sidy Diop ak Wally Seck dinañ toog bay jouer PlayStation bay waxtaan mm-hmm. donc loolu noonu yëpp maanaam mbégte la ci moom quoi ak mm-hmm. bànneex mm-hmm. loolu yëpp man xol bu rafet laa ko jàppee de mais du sew biis de parce que tey bu doon keneen la bu doon keneen la mën na bañ a recevoir Sidy wala mu naan kaan tey subaak ginnaaw subaak li yeeg lii mais dafa recevoir Sidi ñoom ñaa ñu toog waxtaan. Mhm. mu nekk affaire bu rafet man tamit ma mhm. koy rafetlu bu baax a baax a mhm. Euh, gis nañu aussi omoro wax nga ko léegi mu def sorti démb. ne moo njëkk a wax Sidi nii di nga dem Zénith mu xam ba mu woo sëram. pour mu indi ndox. aussi tamit mu wax ay wax yi rafet si diggante mag Makhtar Diop Soubatel ne Makhtar frère am la Sidi doomam la. Uh-huh. noo gisee sorti Omaro bi. waaw sorti omoro gis nga ma wax la benn affaire gis nga gis nga olof dafa lu mu wax. nee na ku wax nar a may kër may la jabar may lay doom boo juddoo dootom sa yaakaar tas olof laa la wax Omaro maanaam bi nit ñi di jàngi tont wax moom tontu la jàng mm-hmm. naa la xam benn affaire nag il communique bien ba pare il joue un rôle très important ci Wally Seck lu leer mm-hmm. laa la wax mm-hmm. parce que tey bu dee showbiz showbiz showbiz rek mën naa ne Omaro ñi fi dàq showbiz ci Sénégal ci la bokk xamul tax ma wax la ko hmm? xamul tax ne la dafay jouer benn rôle bu important ci Wally Wally Seck toog na fi ñaata weer jéewul 3 mois. 3 mm-hmm. mois et quelques jéewul. Mm-hmm. mais ba tey da ngay dégg Wally moom dafa bokk ci musique ba tey. da ngay dégg Wally à cause de da nga koy dégg à cause de parce que tey mm-hmm. buñ ne Sidi Diop ne Momo Dieng ne Ibro Naajo Basung rek par force da ngay indi Wally te Wally jéewul. te artiste bu njëkk ba bu jéewul toog ci ruxam. kenn du ko dégg kenn du xam ci li mu nekk. léegi nag Omaro moom dafa yor ay création yoo xam te ne moom mooy moom mooy moom mooy. moom moom mooy yëkkati artiste am donte jéewul. Mhm. mooy lan dafa def création. Mhm. génne na Wally Seck bàyyi na way. léegi nag rumeur boobu nag si 3 mois yi Wally toog jéewul 3 mois yooyu noonu rumeuru Wally Seck bàyyi na way moom mooy kii. tey boo nee Sidy Diop day joué danga naan Wally Seck moom moo bàyyi way. Momo moo Momo doy day joué ah Momo doy mi ngi joué waaye Wally Seck day nee na bàyyi na way. Mhm. bàyyi way bi nag def viral bu garaaw léegi nag moom téye na artiste am ci li nga xamante ne bii moom moo di musique sénégalaise maanaam bokk na ci 3 mois ba ba muy ñëwaat. dafa bokk ndax mm-hmm. lan moom moo créé moom moo def création boobu noonu mm-hmm. ne Wally Seck day bàyyi way coow lu jub mm-hmm. problème terrain yi nga fi defoon ak affaire yooyu noonu loolu noonu yëpp showbiz la yooyu yëpp showbiz la donc nit bu mu fekkee ne da nga yor communication wu artiste saa su nekk yow da ngay xool ni ngay jaayee sa artiste donc moom jaay artiste am la mën donc mais Omaro amul benn problème wax dëgg yàlla Omaro ku bëgg Sidy la Mm-hmm. ku bëgg Sidi la ku bëgg Mataa suba teel la parce que ni mu mm-hmm. waxee dem ngay xam ne kii maanaam dafa am yéene ci Sidi mm-hmm. yéene na Sidi waa yéene na tamit nga xam ne moom moo di Mataa suba teel donc bu génnee moom aussi def sorti dafa war def sorti parce que tam moom dañ ko tuumal wax ne Omaro li Sidi war a ñëw moom moo tax ñëwul ci rendez-vous bi mhm. mais wax na nee na rendez bi ni mu demee woon noonu la demee noonu la demee moo tax mhm. mu demee noonu mhm. donc demee noonu ñi ñu comprendre ne nii la demee ah kon junior nag waxal mu leer <laughs> waxal ak waxal ak internet yi non non c'est-à-dire rendez-vous bi da ko faussé dafa fekkoon moom mu am plateau moo tax ñëwul ci rendez-vous bi mais man j'en sais sûr sûr et certain que ne gis nga Omaro bu ñëwoon ci rencontre boobu noonu non di gis rencontre bu garaaw ndax dina waxal Sidi lu baax dina waxal ki nga xam moo di lu baax man xam naa loolu parce que Omaro xamul lu bon lu def lu bon cantaakun la nag nañ waxante dëgg mm-hmm. Mm-hmm. cantaakun la te ku ne xam na ne cantaakun ni xamuñu lu bon teral doomu aadama lañ xam bernde doomu aadama jox la nga lekk jox la nga naan waxal la lu baax mm-hmm. waaw man man man ba fi duggee te kaarapit paasal géej lu fukki dërëm fu mu romb naa ma yaa ma jëndal oto ku romb ma ay waay kii fu mu jëlee oto bu mu mayee <laughs> wër na ne maanaam dañuy dañuy sargal doomu aadama uh-huh. dañuy sargal doomu aadama donc foofu la foofu la milieu bi toll maanaam lu boo amee lu baax waxal ko sa nit waaye boo amee lu bon nga nëbbal ko ko mhm. donc Omaro li mu def man dama cee kontaan bu baax a baax a baax te gis nga démb wane na lettre bi nga xamante ni moom la ko Matar Diop suba teel jot lool rek dafay ñëwaat ci nekk Sénégal benn bopp la kenn mënu ko waxal mhm. ñaar mhm. Amina mën nga showbiz wax lu la saf mais bul dépassé uh-huh. mais te showbiz da nga koy teg ci esprit teg ko ci xel xam li ngay wax bu baax baax a baax uh-huh. yëkkati sa artiste te doo wàccee artiste jàmbur mais yow bu la nit déggee dinañ respecté sa artiste jox ko cër xam ne kat ah kii dañ ko war a jàppale eh bien loo gisee polémique yi temps yi mu daan def vidéo yi passé mhm. euh, commentaire yi ku nekk da ngay wax sa avis ñii dañuy indi négatif ñii indi positif noo mhm. gisee loolu kan si kan si si Omaro mhm. temps yi vidéo yi mu doon def yëpp sotti yëpp da nga daan gis commentaire yi positif day am négatif na day am noo gisee loolu waaw xam nga mënul ñàkk ndax ku boot bukki xaj baw la cest am na milieu boo xam te ne Amina boo fa duggee yow waratoo daw coow dëgg la waratoo daw coow mhm. parce que tey am na ñu nekk seen ruq toog kenn gisu leen kenn déggu leen sina bu ñu tiktok ñu defuñu dara génnuñ ci mbedd mi mhm. non ñooñ duñ dégg ku ne leen aani bee mais yow mi exposé sa bopp ci télé yi exposé sa bopp ci internet bi exposé sa bopp ci réseaux sociaux yi non luñ la wax lu ñu la wax non da ngay jàpp ne kat ah li ñu ma wax nii kat moom man maa ko teg sama bopp parce que man maa dugg ci réseaux sociaux mhm. naa la nee naa kenn jëndalu kenn connexion ku nekk sa connexion yaa koy jëndal sa bopp sa wifi yaa koy fay sa boo toogee su ruq bu amuroo waxee nga saaga wala nga xas mhm. bu Sidi bu waxee nga saaga wala nga xas mhm. bu Wally Seck waxee nga saaga wala nga xas mhm. donc j'en suis sûr et certain que ne ñiy wax lu lu lu négatif jëmm joo si jaakaar lool non am sañu waxu loolu quoi ah Cheikh Mbacke aussi def na démb benn sortie nee na Wally Seck moo képp kuy way mu si kuy téye micro moo la gën Cheikh Mbacke nee naa la lu mu wax rek am na fu mu ko teg Cheikh Mbacke mu dem ba jaakaar Mm-hmm. waaw parce que xam na moo tax parce que moom dem na jàkkaarloo nag Wally Seck avant ñuy jël kàddu moom moo jëkk jël kàddu mm-hmm. Wally déglu na ko déglu na position Wally xam na fi xaal fi Wally di waxee ci saahir ak ci baatin mm-hmm. donc moom bu demee ba ni Wally Seck képp kuy téye micro moom moo la gën moom am na fu mu ko teg ba pare moom am na lu nga xamante ne bii dund na ko Wally Cheikh Mbacké moom tamit mu nekk ko baax nekk ki nga xamante ne bi tam wax naa ko nee naa maanaam deful dara lu ñaaw maanaam chaque jour foo ko fekk mi ngi jubale fu ñaari nit di juboowee day dem teewi ju lool mm-hmm. te xam nga ne loolu jaamu yàlla la mm-hmm. moom tam mu nekk communicateur bi nga xamante ni bi tey yàqul daray aar bi parce que mënoon mm-hmm. na ñëw wax lu ñaaw xale topp ci ginnaawam wala ñun ñu topp ci ginnaawam di wax lu ñaaw mais chaque jour bon exemple lay joxe te bon exemple boo koy joxe chaque jour xale bu ñëwee dañuy roy ci yow donc li mu mën a wax rek mooy que ne tey xol bu rafet bi nekk ci waa li bi mu gis rek loolu la wax quoi parce que Amina tam nga gis nga euh, la boo ko sànnee ci mbir dafay ñëwaat ci yow dafay reflétaat ci nit ki mën naa ne xa loo ko bëgg bëgg bëgg boo gisee ak mbañam di nga ko ko waxal. Mhm. voilà donc mhm. peut-être li mu gis ci waali dund ko ak waali mhm. loolu moo tax wax waali te waali tam da ko wane nañ waxante dëgg franchement. dëgg la wane na ko parce que wax naa ko démb nee naa tey. ku Pawlish Mbaye yàqu ne ci internet bi nga recevoir ko tegaat ko ci yoon non kooku nit la. dëgg waaw. ku maye oto. nit taxaw mais yàgg de. ma ne la ma ne la ku maye ah, oto ah Pawlish wax na ko de nee na dañu yàgg en plein public ne la oto mu may baaxul. ngeen daje nga recevoir ko. kooku moom rek moom kooku kan la. ay Amina ku ma ko defoon. junior waxal kan la ko wax loolu. waaw waaw waaw caat sekk caat sekk waali ko mhm. may oto mu ne waali oto bi mu ko may baaxul. affaire bi mhm. def polémique affaire yooyu noonu. xam nga mais na waali sekk doom. je pense mhm. non loolu yoon la. non loolu yoon la parce que caat aussi waali tamit waali dafa bëgg caat waali dafay sentir caat. xam nga bu caat di way dafay am benn yéeg-yéeg ci moom. donc mi ngi noonu loolu <laughs> <laughs> da nga nekk ci liggéey. def na si Pape Diouf dem ci waal Salam Diallo Mbaye Gueye Faye Fallou Dieng. Mhm. waaw day contour contourner artistes yi wala dafa am quelques artistes rek yu mu ciblé. donc damay profité ci occasion di wax loolu parce que loolu il faut ñu wax ci quoi loolu il faut ñu koy communiquer bu baax a baax a baax sinon euh, maanaam communication bi dina am nu mu demee parce que. Mhm. parfois ma dama dégg yenn journaliste di wax naan si dafa am ñoo xam ne daf leen ciblé. xam nga dafay seeti ñi ñii seetiwul nii ñii seeti ñii noonu non Amina affaire bi du loolu xam nga affaire bi lan la mhm. affaire bi mooy doomu doomu sénégalais mooy dem Zénith mhm. tey bu ñu xool jëmmi Sidi Diop mhm. xool turu Sidi mais nañ xool ne sénégalais mooy dem te bu demee képp kuy sénégalais ci yoon da nga ko fa war a fekk boo amee les moyens soutenir ko soutenir artiste bi soutenir sa dëkk yaa ngi dégg artiste euh, relation ak artiste yi amul xaar may ma yàlla ñëpp benn la mhm. Sidy amul benn artiste boo xamante ni bi tey mën nañ la du wax ak moom wala du kaf ak moom wala artiste yëpp lay waxal ñëpp lay kafal ñëpp lay reyal donc bu mhm. amee bés bu mag ñu ne dem na ci kii demul ci kii non non nañ xaar rek ñëpp dinañ ci gis seen wàll bés dina dem si ñëpp ñëpp ci ñëpp lay dem mhm. ñëpp lay dem ma ne la même artistes yu gën a ndaw sax dinañ jot li nga xam ne moom moo di comme ñu mu bokk génération ay El Hadj ay Tarba ay ñoo ngi xaar Sidy dem si ñoom déggoo ma ne la ma ne la Sidy Diop génitam bii ñëpp dinañ ci gis seen bopp. incha allah du benn artiste buy taxaw ne Zénith bi gis na si bopp. Mhm. waaw parce que tey. Mhm. wax naa ko nee naa yëfi Sénégal la yëfi Sénégal la te. nit ki nag bu amee lu mu sumb dañ koy ñaanal yàlla ne li mu sumb yàlla na ko yeggale ak jàmm amiin amiin man loolu laa gis ñu mhm. ñaanal ko mu jël drapeau bi porte ko yóbbu ko Zénith feesal foofu del yaa ngi dégg ñëpp xam ne doomu Sénégal moom moo fi ñëw ñu jël affiche photom affiché ko comme ni ñu affiché yeneen Sénégal yi fi nekkoon mu bokk ci carrière am loolu la mais communication bi ni mu amee est-ce que am na tam Europe parce que sénégalais itam ñoo ngi Europe aussi loolu c'est très important. dem Europe cest à waaw communication bi. Mhm. sénégalais yi nekk foofu étranger. Mhm. génn en masse. Mhm. jàppale Sidi. waaw waaw parce que tam doomu Sénégal la. te am na ay sénégalais yi nekk foofu. dëgg la xam nga li nga wax noonu aussi loolu lañ ci gën a soxla. dëgg la parce bi. diaspora bi ñoom ci cible bi lañ bokk. tey af bi yëpp ñooy cible bi. mais bu ñu sañoon diaspora bi mhm. ñoo gën a nekk cible bi mhm. parce que diaspora bi ñoom ñoo fa nekk ñoo xam ne dëkk bi doxee ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy maanaam ñoom boo wootee ñoom ñoo lay wuy si mhm. di woo fans Wally yi di woo fans Pape Diouf yi fans Mbaye Gueye Faye Youssou Ndour yi Sidiki Diabaté malien yi xalpulaar ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñi nga xamante ne sax duñu sénégalais ñi nga xamante ne sax duñu sénégalais parce que affaire bi affaire internationale la ñoom ñëpp ñi ngi leen ciy woo te di leen wax guichet yi ubbi na nañ teel a dem jënd seen billet mhm. réservé wu bu bés baa 18 heures bu fekkee leen ci salle bi ñu teel a démarrer prestation yi mhm. mooy loolu war nañ mën a xaar euh, si diggante bi balaay Zénith bi si di génne album ndax gis nañu waaw album waaw mhm. gis nañu mu génne single trois la waaw benn bi c'est typiquement lamb mais ñaari euh, du sénégalais. son bi dafa xaw a différent ak musique sénégalaise. wóot monde euh, wóot musique la ñaari. Euh, traditionnel la parce que tey lamb boo koy way loolu yoon la mm-hmm. lamb boo koy way boo xoolee ñoom Nabou yaa daan ñoom Ndëkku Cuun ñoom ñëpp bu ñuy way traditionnel bu ñuy way lamb lamb mënoo koo way ak afro mënoo koo way ak ak ak ak ak ak kii afro bi teg yooyu noonu mm-hmm. donc li nga ko mën a way mooy traditionnel mm-hmm. donc mu way traditionnel way boo xamante ne bi aussi way bu neex la way bi nga xamante ni macha allah mbër yeeg euh, amateur yeeg Euh, ñëpp gis nañ seen bopp macha allah. Mhm. mu génnee tamit ñaari son yi nga xamante ni mën naa ne ñaari son yi euh, mën nañ ko tuddee world music maanaam musique boo xamante ne bii mën nañ ko déglu fépp ci monde bi maanaam du mbalax ko donc wax naa ko nee naa Sidi foofu la toll fi mu toll nii tollatul jamono ji nga xamante ne bii rek dafay teg rek xam nga teg sabar teg marimbaa teg yeneen xam nga ñu tegal ko mbalax mu ne kii rek mu ñëw dugg si. xam nga mm-hmm. way mais dafay toll fi nga xamante ne bi tey dafay dafay dafay jaay musique am te mm-hmm. musique fu nga jaay ko fu nga génn wax ma yow pour nga génn de parce que dafa am yow nga génn am sa musique génn mm-hmm. donc da ngay génnee sa musique internationalisé ko donc foofu la toll jamono juñ toll nii moo tax muy génnee yenn musique yi nga xamante ni mën naa ne sénégalais yi miinaguñ ko yenn miin yi mais au fur et à mesure ñuy dem dinañ xam ne ndekete lii moom mooy musique album bi album bi euh, ñi ngi ci préparation yi gis nga barki démb wax na li nga xamante ne moom moo di Euh, ne li nga xamante ni moom moo di album bi balaa ñuy dem Zénith dina génn. Mhm. album bu doy waar waay. bu garaaw. <laughs> Amina leen da xam naa ko ci ko waroon génnee moom bu yeboo na nga denc ba Zénith bi paase. Hmm? maa la ko wax ah, jamono bii moom yéen a teew réew mi moom. jamono bi toll nii yéen a teew réew bi <laughs> non cest à xam nga du question du man man man daal man daal man Amina dégg nga c'est-à-dire xam nga actualité actualité bu dox danga koy ànd ak ñi nga xamante ni tey ñoom ñoom ñoom maanaam ñoom la méngool Sidi mu toll nii. li mu jël dafa rëy muy Zénith donc forcément forcement dafay nekk li nga xamante ne moom moo mooy actualité waaw ok Junior lay tëjee émission bi li may tëjee mooy di la gërëm di gërëm euh, Samba sama frère moom mi nga xamante ne tam wax naa ko nee naa jëlul caméra bi rek jaar na ko suuf wala moom ma koy durunde déedéet da koo teg cadre ko moom naaj macha allah sama caméra nga xamante ne bi nee naa la su ma doon rassama moom mooy takk kenn dëgg la donc di la gërëm yow tamit Amina mhm. say question dafa pertinente ah di la wax ne tamit milieu bi nii la rek persa rek door muy daanu bu mhm. yàggee rek lépp dina ñëw incha allah mhm. di woote waat encore une fois di wax ne Zénith Sidy Diop bii Zénith la boo xam ne bii képp kuy sénégalais daf laa ñor ñu ngi ñaanaat xalpulaar yi euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo di bambara yi ah, français yi fépp fu diaspora bi nekk ñu ngi la ci woo nga dem jënd sa ticket teel a bu boobaa ñu jox Sidy suñu drapeau mu dem représenter Sénégal jël ndam li ñibbi si waat mhm. Amina mbokk internet yi dis ngeen tey Junior Gueye laa jël si woon ñu sekki waxtaan mi chroniqueur bu mag bi ci réew mi mhm. nee naa ko doo tudd showbiz di ko ci génnee tax nee naa ko da ci nekk nag di liggéey liggéey bu rafet bay waaram mhm. formé ñu bëri gis nga ko sànq tudd na ko si ouverture dama koy ñaanal rek mu yàgg fii mu fekk lu bëri ñu bañ a séddale dara ci ginnaaw baat bi rëy baat bi automatiquement euh, wér loolu laa koy ñaanal ah ñu lay dégg fu ne ci àdduna am nga talent bi yi mm-hmm. te xam naa ni comme ni nga ma doon wax am na luy nelaw mm-hmm. loo xamante ni yeewoogul ci yow des na yow mm-hmm. gars yi dañu fon ni nii ni remee des na macha allah maa ngi lay remercier bu baax di am mbégte partager ak yow plateau bi mbokk internet yi jërë ngeen jëf